asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki taalibe yi bokki jullit yi nu ngi leen nuyu tey fas yéene jéem a tontu ci li ñu la laaj sun kemtalaay kàttan ci liñ ci man te mooy cosaanul kër gi kër gi nag cosaan li mooy cosaanul jumaa ji ndax kër gi ak jumaa ji ah, barab la boo xam ne yëpp lañ lépp lañ boole joxe joxandoo taalibe yi muy kër yi nga xam ne kër gi nga xam ne fi la nekk sëñ Dame Mati Sourang moom lañ ko joxoon kër gi ci topp nañ sëriñ Moutala mooy fi ekol bi nekk gi ci des Serigne Mass Sow ci jamono yooyu ñoom ñooy kilifay dëkk bi kër gi nag ñuy dox ba yàlla dogal sëñ Dame mi nga xam ne moom lañ ko joxoon dafa wàcc liggéey bi wàccee liggéey nag mboolem kër yi fi sës yëpp ñëpp maase wu ñu nekk ay jullit Serigne Dame doomam ji nga xam ne moo ko fi wutu muy sëñ Dame Mbacke moom Mamor Paka la moo fa wuutu waajuram sëriñ Dame Mati Sourang ci imaama gi nga xam ne ah moom la ko sëriñ jox ndigal mu di ko jiite taalibe yi fii ah moom nag ci xalaatam ak gis-gisam bi nga xamee ne egg nañ ci kër sëñ Dame gii sëñ Dame wàcc na liggéey tañ di ko war a miraas moom moo xalaat ne bu fekkee ne bàyyi nañu. ba keneen jënd ko koo xam ne du taalibe bi mën na fee xatal taalibe yi moom moo sàkkoon ci sëriñ Saliou leeralal ko ko wax ko ko ba sëriñ bi jënd kër gi ci juróom-ñaari million jox ko taalibe yi ne leen nañ ko defar te na na yem ak jumaa ji ab atte loolu mooy cosaanu kër gi moo tax ndigalu sëñ Saliou loolu itam moo tax kër gi mel nii ah eh, taalibe yi di ci jéem waxtu wu ne seen kemtalaay kàttan ba tabax ko ba teg ko étanche nii loolu ci ndigalul sëriñ Saliou ah loolu nag moom mooñ ci saanu kër gi ba fi kër gi egsi na ci teg nañu étanche étanche bi ba bu bu ko film bi génnee di ngeen gis fu mu toll loolu mooñ ci saanu kër gi ah mook jumaa ji nag ñoo lëkkaloo jumaa ji moom itam noonu la ko sëriñ bi digle ci jamonoy sëriñ Abdou sëriñ Abdou moo joxe ndigal nu julli si fii bi si iit yi waaye noonu ko nu jullee fee fa kër sëñ Mass Sow fa mbaaru morit kër sëñ Mass Sow jamono yooyu diggante foofu godoron bi jaar ak kër gi ñu féete penku xat na loolu waaye teewul fa ñu daan jullee iit ba sëñ Abdou Lahad joxe ndigal ne nañu jullee si fii iit ci lañ ko fi toxasi toxale si ci loolu nag ci leen doon dox di ci dox ba ba ñu teg xeeru jumaa ji sëñ laa ñëw teg ko ah ñu def fondation bi dox ci ab diir biñ ci doxee ab diir réew mi am jafe-jafe boo xam ne ñëpp dégg nañ ko ba ñu bari gàddaayee fi dem am ñu fi des liggéey bi taxaw ñu nekk fi ne fi ne fi ba suñu borom loola wàññi ko sëñ Daam Mbàkke mi fi du ñëw sàkku ñu defaat ci ay jéego ba tàmbaliwaat liggéey bi loola it mu egg ci waxtaan ci ak sëñ Saliou ba sëñ Saliou def ci ab soññe boppam boo xam ne ab lettre la bu mbind jox ko sëñ Dame Mbacke keroog bi mu koy indi abiyon la jël ñëw wàcc waxtu une la fi egsi que sëñ Assane jóob boobu moo fi nekk représentant sëñ Assane woonu jox nu lettre ba wax nu lam nu ci wax ah nu yëgal ko taalibe bi yëpp nu bokk sóobu ci liggéey bi ba taxawalaat liggéey bi muy liggéey jumaa ji lam ca wax it la ci sëñ Saliou waxoon itam daf koo soññee dafa soññee liggéeyu jumaa ji waaye ba muy soññee liggéeyu jumaa ji kër sëñ Touba gi la jiital ne digal naa leen lu waaye mën na ko ci def fas naa ko yéene ànd ak yéen ba mu yegg def na ko nam ko waxe woon ah yàlla na yàlla taas ci barkeem kon loolu mooy cosaanu liggéeyu kër gi ak jumaa ji رقيب رقيب مستجيب مسرسب مزيع ملاذ ومائل نسيب حسيب ذو هدايا مقدم هو الناس والنساء نبي له زال عزيم مبين هو المصطفى المختار billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa mbokk yi mbokk taalibe yi ñëpp di leen siyaare di leen balaq di leen balaq di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak Cheikh Mawlul suñ borom subhaanahu wa taala mu ko fi lool te mu su ko defee rek kon ñu ngi fii ci Touba Ziguinchor ci kër Serigne Touba ji feggoog suñu jëwriñ suñu kilifa Serigne Mortala Touré mi nga xamante ni mooy représentant général des Mourides fii ci Touba Ziguinchor ak mbooleem ndaw yi nga xam ne ñoo nekk suñu suñu wet di ñi nga xamante ni ñoo ñoo ŋànk liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Sëriñ Tuubaa fii ci dëkk bi ci mbooleem daayira yi fi nekk ak ci daare alxuraan ji ak ci liggéey yi xam ne moo jëm ji projet yi nga xamante ni ñu ngi taxawal fii ci kër ji ne barab bi ñu nekk comme ni ko suñu jëriñ ju baax ji waxee Sëriñ Mortala kër gi ñu nekk muy kër Sëriñ Tuubaa ji ak jumaa ji ñu jàkkaar lool ak barabu jàngukaay bi ginnaaw bi mu leeralee taxawaay bi nga xam moom la Cheikh Saliou Mbacké amoon daa waxoon ne barab bi su noppee na doon barab boo xamante ni barab bu ñuy jàngalee alxuraan lay doon ba tax na bi kër gi noppee ba àgg ba sotti liñ fi njëkk xalaat ngir sémb ko fi muy daara alxuraan fekkoog Serigne Cheikhouna Gaye mi nga xamante ni moom mooy Serigne daara bi fiy jàngale ñu def fi daara joo xam ne daara ji mucc ayib lay doon daara joo xamante ni tàmbali nañ ko di ci liggéey yaakaar naa ne ci biir jumaa ji tàmbali nañ fa liggéey boo xamante ni am nañ yéene dafa fa daara internat yoo ni dañ fay produire ay dongo yoo xam ne dañ fiy mokkal alxuraan bind fi kaamil ci ay góor ak ay jigéen muy projet boo xam ne nag budget bi ko war a defar budget financière bu mag lay doon ba tax na ñu ñu ne woon danañ ko yaatal lancé ko képp koo xamante ni euh, ab jullit nga di ab rawatina di ab taalibe nga dugal ci saw ñaq ngir liggéey la boo xam ne dañ ciy liggéey Serigne Touba waaye liggéey alxuraan lay doon muy projet boo xamante ni projet bu mag lay doon ñu fas yéene ko ànd ak mbokki jullit yi ànd ko mbokki taalibe yi barab bi ñu jàkkaarloo muy jumaa ji muy bara boo xamante ni jullit yëpp ñoo ko bokk rawatina taalibe yi murit yi ginnaaw ba ñu amee barab bi ci ay conditions yu yu jafe yu metti ba taxawal ko ba mu egsi fii mu taxaw tey jii tabax fi jumaa ji toll nii am fi penc mu toll nii am na ay liggéey yu baree bari yoo xam ne des na fi ngir yaatalaat jumaa ji ngir taaral ko waaye tamit ngir def li nga xamante nii moo di moo di moo di kër Serigne Touba gi yokk ko ba dayo bi nga xamante nii fi lañ bëgg mu àgg fa mu àgg fa ba tax na kon bi ñu dajee fii tey ñu ne woon danañ ci yëkkati ay kàddu soñ ci mbokki taalibe yi nekk fii ci biir Ziguinchor ak li ko wër waaye soññ ci mbokki taalibe yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye soññ ci mbokki julli yi nga xam ne ñun fii ci biir réew mi yëpp rawatina ci gox bi ñu féete mu di Casamance sax fépp fu fi ab jullit nekk ngir mu mu gis liggéey bu toll di nga xam ne taalibe Serigne Touba yi waaye jullit yi ñu ngi koy liggéey Serigne bi fii ci dëkk bi ndax bu ñu tuddee Casamance tudd Ziguinchor xel yu bari day am ci bari lu muy nekk ndax li fi li fi doon xew ci ay conflits yoo xamante ni xëy na noonu la ko suñu borom bëggee waaye jàmbaaru taalibe yi seen pëseef seen bëgg lu baax li li muy métti ak li muy xat-xat tax na biñ fi nekkee tamit wane nañ fi seenu pëseef wane fi seen seen seenu jàmbaarte taxawal fi liggéey yu toll nii mag ñii mu lim ñoo taxawalul liggéey ba ñu bari ci ñoom nekkatuñ fi waaye ndaw yi wuutu leen fi ngir wéyal liggéey boobu muy liggéey la boo xam ne ni ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee rek liggéey bi bu mu daal suuf ndax bu ñëw rek ciy jëf li nga mën ñeneen topp ci waaye loolu liggéeyu Serigne Touba lay doon kon ñun liñ ci tollool muy diggante kër Serigne Touba gi diggante jumaa ji diggante daara alxuraan ji loolu dafa doon liggéey boo xam ne bu am solo la rawatina daara alxuraan yi nga xamante ni fi la ñuy produire ay nit ñi nga xamante ni ëllëg ñooy taxawee jumaa ji imaam yi ak waxtaankat yi nekk jumaa yëpp ci biir daara alxuraan yi la produire kon daara alxuraan ji mooy li nga xamante ni moom la ñuy lancé mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu dugal ci seen seen seen seen loxo bu baax a baax ngir liggéey bi mën a jëm ci kanam kon yaakaa naa ne ci tënk loolu moo nekkoon kaddu yi xamante ni moom lañ ñëwoon dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy indi ngir ngir ngir jottali ko mbokk jullit yi ak mbokk taalibe su ko defee rek kon liggéey bi comme ni ko waxee sànq képp koo xamante ni am nga yéene yi barkeelu ci ci liggéey boobu danañ leen jox ay numéro téléphone yoo laa jox numéro téléphone yooyu incha allah rabbi soo jokkoo ak ñoom lépp loo ci bëgg a dugal nga bëgg cee barkeeloo rek soo leen ko joxee dana egg si liggéey bi numéro yi nga xam ne moom la ñuy tudd mooy numéro yi ngeen di gis ñu affiché wu ci suufu écran bi képp koo xamante bëgg nga cee tab bi wala nga bëgg ci ak leeral ci liggéey soo jokkoo ak numéro yooyu rek lépp lu ci ak leeral ak tegtal danañ la ko jox loo ci bëgg a dugal tamit soo ko jaaralee ci ñoom dana egsi fii ci barabu liggéeykaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh من جدولي ويا خير سيد لك الوايد القهار رب الورى جل لك العلم والأمان والخير كله ndigal li si jaar yi wax bëgg ngir wéyal daara ji dañ koy def daara ji daara ji mag lay def ñu ci waxtaanee ak mag ñi ñoo fii ci ëttu jumaa bi su dagal tàmbalee ci magasin bële dañ def ngeen ñaar ñun dañ ko jëm daara ji dañ ko def seen loxo waaye projet bi ci am mooy daara internat lañ koy def mag boo xam ne fii day am ñaari wàll góor ñi ak jigéen ñi waaye ginnaaw ñoo ne mbaar bi day bokk ci biir projet daara tàmbalee ko am mbaar projet bi ñëw après bu ñëwee dafay fekk mbaar bi ànd ak moom waaye mbaar bi duut lañ mbaarum jàngukaay la ngir ñu tàmbalee ngir wéral laay bi moom de ñoom jàngi xaw naa yàlla na yàlla fay ci benn suñu xol sedd na lool tey tam seen projet bii yàlla na yàlla na àgg. ndax lii ngeen def moom rek mooy moom la ñu war a def. moom la ñu war a def jàng liggéey ak jàng alxuraan. yooyu dem santaat Serigne Touba bu baax a baax ndax ni mu yare mat naa sant yàlla foo ci nekk da ngay nangoo liggéey li ëpp solo ci mooy serviable loolu am solo trop gis social serviable te wax dëgg fekke ko fi yàlla na yàlla jàppale leen présenté itam ñii sëñ Sam Mbacké ñoom suñ gede moom Mbàkkeel sant di borom xam-xam bu mag nag da ciy dem di di sëñ Guèye Mbàkke moom moom mooy maamam mooy maam sëñ Modou maam mooy maam kii waaw ñoom dañoo doy loowul lool te loolu sax doy na sëkk waaw doy di jàng di jàng di jàngale di sonn ci moom rakkam sëñ Alaaji mooy naaf la bi maay ko bàyyi borom alfaan di neex moom moom moom moom moom moom rakk rakkam yooyu yëpp gisuñu ko toujours ñu ngi ci waar rek di leen présenté sëñ Moustapha Wane mii Moustapha Wane mii moo jiite mbooleem pour région euh, euh, président national bi damaa jëlee l'équipe fédération fédération Daara Alfuraay bi bu yor Daara yi Moustapha Moustapha loo yoroon moom moo ko représenté moom moo ko moo ko remplacé ñu ci doxal doxal bu rafet ànd ko ay mbokk mi sëñ Arouna si li mi nekk Kolda ak euh, conseil national conseil waaw fédération au niveau national. au niveau national ci da ah, maanaam ay ay doomi daara ay doom comme ni kii Kolda la nekk. moom moo leen fa représenté. kii Matam la nekk moo leen fa représenté. mu mu Ousmane Dia. ak ak Seydou ak Loubou Dramé comme ni ma ko waxoon léegi rek ni ngeen xamante ak ñoom it. des na kër bu Omar Minté. waaw na ñoom jàppante ñoom lépp lu doxal daara ak lu ko jëm a kanam ci la ñuy yëngu kon ñoom it yàlla na yàlla sàmm te mel daal sedd na ba fa sedd ma neex te itam lii itam bu soobee dañ ko àggal ñu war a àgg ñëpp incha allah dañ ko àggal ñu war a àgg waaye xam leen daal cant bi am na fu mu commencé waaye amul fu mu comme ni nga ko waxee Serigne Cheikh itam ñu ñaan ko yàlla yàlla ko yàlla jàppale. bu bëgg lu baax la ku am pësteef la lépp lu baax luñ ko wax man bi bi ma sëñ Talla ne ku loxo manqué rek sama xol li kaa seet dinaa ko wax dinaa ko dinaa ko woo léegi wax ko koy itam ne ko waa Sénégal sant nañ la ndax sa taxawaay ca foofa fu mu toll man boo demee fàtte na ko bu yàgg moom am na ndimbalal yàlla ndimbalal yàlla li mu am mooy lu mu mën def fàtte na ko yàlla yàlla yàlla yokku wéram yokku wërsëgam te boole ko jullit yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad لساني وأقلامي وقلبي وجثتي لمولى الكريم النار أرسل المختار عبدا مخدما خليلا قديما فائقا جملة التكليف لو دار أمدائي قديما مخاطبا وللقاد في أمدادي أرغب لك المعجزات القرب يا خير سيد